Tesson alors université Cheikh Anta Diop ñu ngi fii nii ci rond point bi rond point bi nga xam ne nag euh, daanaka fi lañ def statut Cheikh Anta yàggul dara biñ ki jëmalee euh, kii di savant boobu euh, suñ fàttalikoo nag ñoom ay jamono ñii di étudiants yi dañ ne woon amaana dinañ rus lii wala boog benn kilifa sax dafa noonu nañ fexe ba daal di rus li nga xam ne moom mooy statut bi ndax dafay jëmmal nit ku màgg koo xamante ne barab bi liñ fi war a jàngee moom mooy. Euh, wutab xam-xam mais tey nag ak événement yi niñ demee ñin ñi ñëw nañu wala étudiants yi génn nañu soo xoolee sax waa police ñoom euh, seen wàllu bopp ñu ngi commencé dindi yenn ci ay barrage loolu rek li nga moom mooy ah dégg nañ ko li nga sabab rek moom mooy euh, fexe xool ñoom tamit nan la ñuy avancé soo xoolee tamit ba ci pegg ba lool lool lool oto sapeur pompier mu ngi fële moom tamit daal dinay ñëw Euh, ay euh, way takk dar tamit daal di fi nekk gis nga ñu ngi avancé ndànk-ndànk pour fexe euh, contre carré ñi nga xam ne ñoom ñooy ndaw yi fi nekk te ba tey tamit soo xoolee waa gendarmerie dafa mel ni commencé nañ ñëw en renfort. Euh, li leen indi euh, moom mooy fexe ba jàmm daal di dellu si mais université bi wala boog campus social fii nii nag mooy pavillon A soo xoolee yenn étudiants yi ñoom ñu ngi sëpp ci euh, lii di balcon yi di seetaan ñeneen ñi wàcc di xeex mais xeex bi boobu ba léegi yàgg na depuis 12 heures lañ ko tàmbali woon ba ëndëg nii ñu ngi ci 16 demi weesu na étudiants yi ñu ngi fii boutiques yi nga xam ne ñoo nekk ci boor bi soo xoolee ñoom tëj nañ leen wàccee seen rideau fii nii ñu taxaw nga xam ne nag moom mooy. Euh, yon bi jëm bi Dakar bi jëm Wakam euh, yon bi mën nañ ne sax auto euh, doxatu fi dematu fi depuis 11h30 suñ sukkandiko nak ci benn source loolu la ka sabab mom moy kenn du jël risque dal di fi jaar étudiant yi sax ñom ñoko ñëk baaré a ñom ñu ngi gaddu seeni sac di sanni xeer ñom tamit tek benn barrage bo xamné xeyna duñ leen téla atteindre sank nak amon na benn accalmie bo xamné amon na accalmie nak suñ koy wax moy dañu won Euh, la waraloon noppalu googu nag lañ xamul mais tamit soo xoolee Modou xoolal ma zoomel ma la lee euh, côté bee gis nga ñu ngi daw euh, cat bee soo ko xoolee moom mooy daanaka ci kanaal 4 bi ñoo ñu ngi daw ah sama copain yaa ngoog Modou ñoom ñooy infiltré ñoo ngoog ñëwatina ñankoor copain yaa ngi ne lee ñoom ñu ngi ne lee modax tax daldi dawe bor di donc moy nervi yi waaw si tur yi mom moy nervi yi ñoom li ñuy bañ a depuis sank sax man benn instant euh, xawon nañ nangu sama téléphone ndax néwon nañu dama té sama téléphone ñu gis né xeyna na damay filmer te fekk filmer wu ma nag maa moom sama téléphone waaj bi ñu waxee tamit ma wax ko xeyna gëm na. mais lool rek di wane né ñu ngi fi ñu ngi def li ñu bëgg def ku leen la ku leen koy def lo nak lool kon xamu wala man xaw ko du moins mais de toutes les façons lu am la. wane nañ ko démb ci suñuy image woon leen li liñ doon def ak li ñu doon kii wane rek ne ñoom ñoom ñooy jàpp booy nekk ci ay L200 ak ay pick ak yu kenn xamul yoo xam ne parfois dañuy am sax plaque yeeg série yeeg ñoom seen voilà mais li ñu fi indi tey mooy université mu ngi tàkk wala boog am na xeer am na lépp xeex am na fi diggante force de l'ordre ak ñi nga xam ne nag ñoom ñooy étudiants yi Euh, donc rek di wane ne situation ba léegi dafay euh, gën di empiré wu ni ko tubaab di waxee de mal en fa la jëm ndax léeg-léeg nga jékki-jékki gis ñii di étudiants yi xaw a ah yi nag mais ñii tamit dañuy riposter riposter ba étudiants yi dawaat mais xam nga daw étudiants yi moom doo bëgg dugg parfois ci stratégie puisque ay dañuy dañuy peaufiner ay stratégie yu grave suñ la nee suñ la nee suñ la nee suñ la nee euh, kii am na rek nu mu tuddati front am na rek. c'est parce que am na ay pàcc yoo xam ne nañ ko ak nan lañ koy organiser loolu yëpp da ci am donc su commencé 11h am groupe bo xam ñoy ñëw 11h 11h30 ba ba ba 12h30 ñooñ dem añi benen groupe ñëwaat benen groupe ñëwaat ba kérok 15h di jot té loolu sañ koy def ñom c'est parce que dañuy mëna sonal nit ñi et puis dañuy dem ani ñëwaat delu ci euh ñu nekk ni nak waxtu añ mom wessuna na na mais xeyna dafa am benen groupe bo xam fay noppalu.

bii ñu taxaw nii oto yi dañ fiy jaar léeg-léeg tamit piéton yi jaar fi puisque ubbil nañ leen ay brèche yoo xam mun nañ fay jaar mais euh, xoolal xoolal xoolal xoolal xoolal xoolal xoolal ñu ngi jëlaat ay bant li ñu bëgg ci bant yi xamalan la dem xam bi waat li nga xam ne nag moom mooy moom mooy moom mooy taal gi ce qui fait kenn du leen gis oh fii la ñu bëgg a taal Modou oh fii waajaa ngi visé fii lañu ñu bëgg taal mais nag xoolal fii la ñu bëgg taal seen seen objectif fi ñu toll nii jamono ji tembe mooy lii ñu teg ñun ñu yaakaar ne barrage la du barrage mais dañoo bëgg taal fii euh, dañoo bëgg taal fii tuuti moo du ñu xaw a dandu tuuti gars yi gisuñu gars yi gisuñu de gars yi gisatuñu mais de toutes les façons angle baa ngi nii mun nga am angle bi ok. xolal ma li xolal ma ki xoolal image bu insolite bi boy bi fi mu taxaw mom rek ben étudiant fiñ def le coup des les étudiants au cœur de la lutte contre le coronavirus Ben boy mo fi taxaw di sanni yor ay briques keneen a ngi ni. donc di wane ne mbir mi tarna ah tarna, lol, lol, lol, lool lool fi ñu nekk ay commissaire ñoo commencé ñëw ak ay ak en tout cas ay haut gradé hein justement ñom ñoy ñëw euh, pour waajaa ngi dàq moytu len dragon ngi demati encore dragon ngi demati encore peut-être euh, vous faire un petit résumé Modou comme euh, euh, nous sommes ici euh, à l'université Anta Diop de Dakar, théâtre d'affrontement entre étudiants et forces de l'ordre depuis 12 heures jusqu'à présent. Alors euh, les pierres, ou bien les pierres, oui, viennent de partout. En tout cas, l'insécurité, elle est là, elle est palpable, elle est totale. Mais ce qu'on nous suggère à, tout, à, tout, un, chacun, tout chacun, c'est un peu d'être méfiant. Alors nous sommes ici à l'université Cher Anta de Dakar sur l'avenue où la circulation a été bloquée depuis 11h30 donc pas de va-et-vient. Alors c'est un peu compliqué pour les riverains, ceux qui habitent, euh, euh, disons, euh, ceux qui habitent le point E. Et face colobane Gueltapé, c'est très compliqué, mais c'est l'intifada entre forces de l'ordre et étudiants c'est hyper compliqué. En tout cas, euh, ce qu'on peut retenir n'est rien d'autre que les étudiants euh, sont en train un peu de peaufiner des stratégies très pointues pour euh, faire repousser, disons, les forces de l'ordre, les forces de l'ordre et de maintien, mais ce qui n'est pas du tout possible. Alors, ces images symbolisent simplement que la riposte, elle est là, voilà, avec des forces de l'ordre qui également tentent un peu de contrecarrer euh, la stratégie euh, estudiantine euh, qui est quelque part très pointue, hein, très aiguë et très... voilà, en fait, je n'aime pas trop qualifier, mais la situation, elle est là. Voilà, nous avons des hauts gradés, regardez, il y a également Dragon qui est là et des forces de l'ordre peut qui se reposent momentanément, peut-être pour assurer la relève, je ne sais pas trop, mais de toutes les façons, voilà la, situation qui prévaut sur l'avenir entre Diop de Dakar. Alors, regardez, nous sommes à la grande porte de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Voilà, ils ont atteint leur objectif Modou, comme je te le disais tout à l'heure. C'était justement de faire, euh, d'allumer un feu ici. Et voilà, c'est encore un autre objectif atteint. En attendant, en attendant, on va essayer de voir. Voilà, ils sont là, ils sont là, les étudiants parfois, euh, ils sont en groupe pour pouvoir essayer de faire, euh, en fait, d'assurer la relève ou bien de, repousser les forces de l'ordre. Maintenant, euh, de l'autre côté, Morou, regardez, les policiers sont en train maintenant de, jeter des pierres, peut-être, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il y a ou bien ce qui se passe. En tout cas, Dragon encore fonce à l'université Cheikh de Dakar pour peut-être repousser, disons, le barrage, non, bloqué. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui se passe Je n'en sais rien. Oui, je n'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai vu des gens très déterminés qui se battent et qui, euh, au bout du compte, euh, font en sorte que voilà, la police euh, n'ait pas accès à l'intérieur. Regardez cette voiture 4x4. Oui, de la BIP. Regardez. quelques stratégies pour repousser les étudiants. Des étudiants très têtus, très déterminés, très combatifs. Nous sommes à l'université Cheikh de Dakar. Voilà, attendez, il y a un officier qui donne des ordres, Modou, il y a un officier qui donne des ordres. À, dans l'armée, on dit que les ordres sont faits pour être exécutés. Quelle stratégie Quelle stratégie nga ne gars yi ñu ngi reculer sëñ bi loolooy lan. gaa yaa ngi jëm ci ginnaaw. gaa yaa ngi jëm ci ginnaaw ndax ñi nga xam ne si ne ñoom ñooy euh, étudiants yi dafa am ku nekk ci kaw. di leen sànni sànni yu métti mënuluñ ko dara gis nga ko mooy xale ba leen taxaw ci kaw gis nga ko mbay non te li ci garaaw mooy gauche la gauche la moo tax gauche la càmmoñ bay def lii càmmoñ bi day sànni gis nga ko day sànni waaye benn nit la benn nit tellement que ne dañ koy jox ay munition fi mu ko jëlee laa xamul looloo jaaxal ñëpp ba pare dafa yor benn protection xamante ne wala bilaay non te protection bi su fekkee yaa nga dugg yaa nga dugg restaurant université c'est vrai mooy euh, marmite yi nga xam ne si ne moom mooy def ñeex yi nuñ lekk <laughs> mbay xalé bi dafa soppali la nga xamne mom moy marmidi marmidier ak protection ki ki suñu bëggoon dara dañuy fexé xam ki moy kan duggal ko ci armé ndax ki rek tënn mbolo gis nga ko té ba mu commencé ba légui mi ngi ci kaw. ah dàq nañu nak nee journalist yi pousse len fi ndax benn doomu aadama est wa il est fort il xeer ya tax te yoruñu casque laa ko war. xeer yee tax wàcc leen wàcc leen tuuti wàcc modu modu yëkkat xolal ma waji ji na loxoy xolal ma maay boy xol ko xol ko xol ko xol ko xol ko xol ko ben nit dal di te ab mbooloo dem ba dal di yëkkati loxoy di wane ne moom mu ngi def jëm kàttanam rëpp sa ñëpp way ni rek moytul moytul xolama sama waji ak loxo chamuñ bi yëkkati na melni comme ku gagné donc lool rek di wane ne benn nit la donte ñu ngi koy ñu ngi koy kii ah ah maa ngi lay topp dañuy arrière si si damal maa ngi lay gis sëñ bi xoolal ma scooter bi taal nañ ko ku nekkoon borom kenn xamul benn nit kese la waaye xoolal ma sama waa ji xoolal ma sama waa ji xoolal ma waa ji xoolal ma waa ji mu ngi noone xoolal ma booy bi xoolal ma booy bi benn nit muy benn nit.